gannaaw suñu borom na dogal na lii. gannaaw suñu borom dogal na lii. xalaat jooje rek la am. xalaat jooje rek la am. ma bëggoon nag. ma bëggoon nag. noonee ma ko xalaatee woon. noonee ma ko xalaatee woon. nu bokk jataay nii. nu bokk jataay nii. ma xamal leen ko. ma xamal leen ko. lu ca jógee rek. lu ca jógee rek. noo koy bokk. noo koy bokk. ci gàttal rek nag bon. kon ci gàttal rek. ginnaaw sëriñ bi junjoon na ko. gannaaw sëriñ bi junjoon na ko. ci taxawaayu boppam. ci taxawaayu boppam. bil Mustafa lii banal quddus madrasatan. waaw ah, loolu moo waxoon ne yàlla tabaxal na ma jàngukaay boo xam ne dafa mel ni na mu ko waxee du sotti ba noppi. gannaaw noonu la demee nag. gannaaw noonu la demee nag. te yàlla dogal ci man lii. te yàlla dogal ci man lii. loolu gannaaw xam naa ne. gannaaw xam naa ne. xalaat boobu. xalaat boobu. liggéeyub sëriñ bi lay lay doon. liggéeyub sëriñ bi lay doon. bi mu gën a bi ko gën a itteel. bi ko gën a itteel. ndax euh, jàngu bi. ndax jàngu bi. maanaam xam-xam bi. xam-xam bi. li sëriñ bi bëgg. li sëriñ bi bëgg. ci liggéeyam bu rëy bii. ci liggéeyam bu rëy bii. mu bàyyi ko fi mu bàyyi ko fi. xam-xam rek. xam-xam rek. moom ko moom moo moo moom lañ ko ci mën a moom moom ci ci ci loolu ci xam-xam rek. ci xam rek. lañ ko ci mën a liggéeyal. lañ ko ci mën a liggéeyal. liggéey bi yaatu na lool fa tabarakallah. liggéey bi yaatu na lool tabarakallah. waaye nag li ci jiitu nag. waaye nag li ci jiitu nag. mooy xam-xam mooy xam-xam. ndax ni mu ko bëggee. ndax ni mu ko bëggee. xam-xam rek. xam-xam rek. moo ko mën a sàmm moo ko mën a sàmm. loolu lu ma xamoon la. loolu lu xamoon la. moo doon sama xalaat. moo doon sama xalaat. moo doon sama yitte. moo doon sama yitte. ak lu ma ci néew néew néew doole. ak li lu ma ci néew néew doole. loolu nag. loolu nag. yéen. yéen. xam naa bokk xalaat bi. xam naa ne noo bokk xalaat nag dama bëgg. kon nag dama bëgg. ñu du ma ci nekk dara. nañ ko daal tàmbali nañ ko daal tàmbali rek. liggéey bi yaatu na lool liggéey bi yaatu na lool. nañ jiital lool waaye nag dañ jiital lool. taxaw ko temm nag taxaw ko temm nag. suñu kem kattan suñu kem kattan. Ah, kon defe naa fi mu tàmbali bon. kon defe naa fi tàmbali bon. ngeen seet. ngeen seet. jàngu boobu. jàngu boobu. na mu war a toll. na mu war a toll. ndax dama gannaaw dama bëgg. gannaaw dama bëgg. yoon wépp bokk ci. yoon wépp bokk ci. kon da ngeen di seet jëkk. kon da seet jëkk. jàngu boobu. jàngu boobu. na mu war a dee na mu war a demee. na war a demee. na mu war man na war a toll daal man. na mu war a dayub jàngu. na mu daal moom dayub jàngu bi. gë seetaale ci itam nag. seetaale ci nun nag. jàngu boobu. jàngu boobu. lu mu mën a attan ci nit. lu mu mën a attan ci ay nit ci ci ay ay ay ñuy jàng ay gone. ay ay gone yuy jàng ñuy jàng rek ñuy jàng rek. ñuy jàng rek tàmbale ci gone yi. tàmbale yi doon dal alxuraan. tàmbale ko ci gone yi dal alxuraan. ba ca ñee dem ba ca njobaxtal la. ba ca njobaxtal loolu da ngeen koy seet. loolu dangeen koy seet. ginnaaw dañuy suñu yitte dañ koy def ci jàng bi ba mu taxaw. gannaaw suñu yitte yëpp dañ koy def ci jàng bi ba mu taxaw. na ngeen ko boole gëstuwaale. na ngeen ko boole gëstuwaale. ba xam lim bi ci mën a dem. ba xam lim bi ci mën a ngeen xam ne itam. ngeen xam ne itam. la ci doon sama xalaat. la ca doon sama xalaat. mooy yoon bépp bokk ci. mooy yoon yëpp nag bokk ci. kër yi kër yi kër yi. kër yi kër yi kër yi kër gu ci ne am ci wàll. kër gu am ci wàll. cib lim. cib lim. moo xam kenn la moo xam kenn la moo xam ñaar moo xam fukk seet. yéenay seet. bu boobaa bu boobaa. kenn kër gu ci ne. kër gu ci ne. lam ca war a am lam ca war a ñu jël liñ boobee nag. ñu jël loolu lépp nag kon nag ñiy gëstu loolu. ñiy gëstu loolu ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ànd ak ñi léegi tabax bay bâtiment bi jëm ci boppam. ñiy gëstu loolu ñooy ànd ak ñiy tabax bâtiment bi nga xamante ne ci ci loolu la jëm. dañuy gëstu bâtiment bi. dañuy gëstu bâtiment bi. nam war a toll nam war a toll. gëstu lim bi ciy war a dem. gëstu lim bi ciy war a dem. nam war a toll nam war a toll. boobaa nag bu loolu noonu ah, noppee ba ba ba loolu taxaw. bu noppee ba loolu taxaw. ñu seet nag kër gu ci ne lu mu ci mën a am. ñu seet nag kër gu ne lu mu ci mën a am. loolu daal. loolu daal. man mooy sama ittee. mooy sama ittee. yaakaar naa ne itam. yaakaar naa ne itam. Eh, itte jooju noo ko bokk. itte jooju noo ko bokk. ginnaaw moom loolu moo nekkoon ci man. gannaaw loolu moo nekkoon ci man. yàlla dogal lii. yàlla dogal lii. te dama ne woon bu ma amee baat. te dama ne woon bu ma amee baat xalaatuma woon ne mukk danaa ko am mukk ne nag danaa ko am moom. baat ci sama dund ci sama dund. gannaaw yàlla dogal na ko nag. gannaaw yàlla dogal na ko.

sama jëmm laa cee jiital sama jëmm laa cee jiital. door see boole sama man. bu doon see boole sama man. sama kem kattan ak sama sama kem maa ngi nii daal maa ngi nii. loolu daal lu ci des. loolu daal lu ci des. ci yéen ñii la des waaye du des ci man. kon nag mu ngoog. loolu nag. loolu bu ne loolu nag. alhamdulilahi rabbil a ci pàgguteefu sëriñ bi. loolu nag alhamdulilahi rabbil alamin ci pàgguteefu sëriñ bi. am na ñu ci jógaloon seen bopp. am na ñu ci seen bopp. te ñi ngi ña nga ca digg ba te ña nga ca digg ba seen kem kattan seen kem kattan muy Cheikh Ahmadou Badawi mi muy Cheikh Ahmadou Badawi mi ak ñi mu ko àndal ak ñi ko àndal di rawdu rayaaxin di rawdu rayaaxin ñooñu waaw ak ñooñu ñooñu ñoo ñoo ci ñoo jiitu ñooñu ñoo ci jiitu lii lii nu bëgg nii lii nu bëgg nii ñooñu ñoom ñooñu ñoom dañ leen cee fekk dañ leen cee fekkoon ñu nekk ci kon nag kon nag ñoo ci mën a jiitu ñoo ci mën a jiitu bi loolu nekkee ci man nag mu ne loolu bi mu nekkee ci man nag samay kilifa nekk ci sama kanam. te samay kilifa nekk ci sama kanam. mënuma leen ci woon a wax dara. mënuma leen ci woon a wax dara. man sama kilifa. man sama kilifa. dama koy bàyyi boppam. dama koy bàyyi ak boppam. bàyyi ko sama bopp. bàyyi ko sama bopp. Cheikh Bass mii. moom laa ci waxal. moom laa ci waxal. dama ci bëggoon itam booba. dama ci bëggoon booba itam. xalaat xalaat ji ak itte ji. mu fexe ba dugal ko ci nopp sañ bi. mu dugal mu fexe ba dugal ko ci nopp sëñ bi. loolu rek laa laa bëggoon. loolu rek laa bëggoon. moom nag defaloon na ma. moom nag loolu defaloon ba loola gis naa ci sax wala ba loola sax gis naa ci ay firnde ci wér ne firnde ci wér ne wax na ma ko bëggee woon na ma ko bëggee woon si sama diggante ak sëriñ bi sama diggante ak sëriñ bi defee na ko noonu defee na ko noonu ndax gannaaw bi ndigal ñëw jot na ci man gannaaw ndax gannaaw bi ndigal jot naa ko ak màggal goo xam ne ak màggal goo xam ne wax naa turu daara ji wax naa turu daara ji bàyyi ko xel bàyyi ko xel loolu nag kon Cheikh Bass mii la. loolu nag loolu Cheikh Bass mii la moom laa dimbandikoo. moom laa dimbandikoo. ci loolu ci loolu. ba am ca loolu. ba am ca loolu. boobaag léegi nag. boobaag léegi nag. jéem a xalaatuma ci dara. xalaatuma ci dara. ndax sama kilifa mi ngi sama mi ngi sama kanam. ndax sama kilifa mi ngi sama kanam. foofa laa cay mën a yem. laa cay mën a yem. mu xam mu xam dëgg dëgg jàngu bi. mu xam dëgg dëgg jàngu bi. ak ni mu demee. ak ni mu demee. ni mu ñoree xomm. ni mu ñoree xomm. loolu rek laa bëggoon bu xam. loolu rek laa bëggoon mu xam. Cheikh Cheikh Bass mii rek laa ci dëgër loolu. Cheikh mii rek laa ci dëgër loolu. waaye def na ci jéego yu wóor waaye def na ci jéego jéego yu am solo. ndax ndigal rek am solo. sëñ bi dem na ba ci jëf ci ndigalam. sëñ bi dem na ba jëf ci ndigalam. joxe joxe ci baatam. joxe ci baatam. xanaa liggéey bu rëy yi mu semboon rek. xanaa liggéey yu bari yi mu semboon rek. moo ko gàllankooroon moo ko gàllankooroon. waxagu ci woon waxagu ci woon. waaye moom xam naa ne bàyyi woon na ko xel. xam naa ne bàyyi woon na ko xel. ndax bokki taalibe yëpp sax. ndax bokki taalibe yëpp sax. ba ñu ba ñu ba ñu xamee yëgee loolu. ba ñu yëgee loolu. ba mu ko waxee. ba mu ko waxee. lu ñuy def. lu ñuy def. daañu ci génne cëru daara yi. danañ ca génne cëru daara yi. loolu moom. loolu moom tàmbali woon nañ ko tàmbali woon nañ lu ma saa jaar ci man rek. man it lu ma jaar ci man rek. jëm ci daara ji jëm ci daara ji. dama dama koy booleeg sama addiye dama koy booleeg sama addiye yóbbu ko yóbbu ko wan ko ne lii addiye jee nag lii addiye jee nag bokki taal ñi ñi ñi ñi jaarale ci man seen seen seen seenu jëf ñi jaarale ci man seen jëf ñoo ko ñoo ko joxe moo nekk nii noonu laa noonu li noonu laa daal man la sama xemem téef man sama xemem téef ci daara ji ci daara ngi yem mi ngi yem ca taxawaay ba Madinatul Munawwara amoon ci xam-xam ba taxawaay ba madinatul munawara amoon ci xam-xam. ak basra. ak basra ak kuufa ak kuufa. ñiy génne ci jàngu bi. nañ fasaale na ñiy génne ci jàngu bi buñ doxee ab diir. buñ doxee ab diir. maa ngi ko àpp ci ñetti téeméeri at. maa ngi ba ba maa ngi ko àpp ci kon Touba dana naaw dana nawlante ñooñu ci xam-xam. kon Touba dana mën a nawlante ak ñooñu ci xam-xam. loolu yi moo ci sama xalaat. yéen borom xam-xam yi nag. yéen borom xam-xam yi nag. nu ko gisee rek. yi nu ngeen ko gisee. ci wàllu xam-xam ci wàllu xam-xam. ànd naa ci yéen sëñ mu ne sëñ maam morom sëñ Fallou mii nag. moom nag dañ koo dénkoon. moom nag dañ koo dénkoon. alxuraan ji alxuraan daara yi daara yi. moom mi ngi ci itam. moom it mi ngi ci nag bu baax. ñun ñun ñun ànd ñëpp. ñun ànd ñun ñëpp. bàyyi ko xel bàyyi ko xel. kon. dégg nga wax kon na dégg wax. yéen ñëpp dégg ngeen wax. yéen ñëpp dégg ngeen wax. noonu dégg la def. li ma bëggoon a leeral daanaka sa seriñ bi leeral na ko ba noppi ndax mooy fi mu tàmbale woon ak si fii ci kàttanu yàlla ak dogalu suñu borom bi nga xamee ne suñu borom teg na ko fi mu tooge jataayu Serigne Touba te muy loo xam ne képp ku fi toog ku ne ak la la Serigne Touba liggéey loo moom ci boppam nag bi nga xamee ne jataay bi ma jëkk a wax kenn xalaatal ko ko moom ci boppam moo ma wax ne ma lii sama itte mooy àggale naa li sëriñ bi waaye li nga xam mooy sama itte bopp nag mooy daara ji jooju moom mooy sama naaloo bopp boo xam ne naka jëkk ni mu ko leer la boppam ca lam jëm tam gën a leer sama yitte woon waaye bi ko suñu doom tegee ci sama loxo rek fas naa yéene amatuma jënd yitte jumay jumay loolu wax ne itam ni mu ko waxee waa daayira Rawdu Rayaahiin ak ci njiitale sëriñ Ahmadu Badawi ak ñi mu ko àndal ñoom ñi nga xam ne nee na fekkoon na leen ci joxaat na leen ci ndigal ñu tànn ay commission yoo xam ne dañuy xalaat ci daara ji dayo bi nu mu war a toll ñaata ñi fay jàng nu ñu war a toll ak ñay jàngale daara ji fu mu war a tàmbali ak fu mu jëm kon ndigali sëriñ bi joxe na ko kon ñoom dañ ci dal di jëm fi saasa kon nag sant ci yàlla bu baax ndax sëriñ Bakk Boussa leetar bi mu bindoon dafa waxoon ne Serigne Touba ñetti naal lañ gis mu bàyyi woon ko fi benn bi mooy yoonu Makka ba ca dolli ko di jumaay Touba kon nag wenn naal yi moo ci desoon mooy daal joo xam fu ni nit dana fa bàyyi ko di ci jàng kon nag ñu ngi ñaan ci yàlla ci barke suñu Touba Serigne bi nii mu ko sombe yal ko suñu borom mooy kattan ak wér ba lépp mu àggale ko ba ubbi ko ba daara ji tàmbali lu yàgg-yàgg te lépp mu fekk ko. nee na liñ ciy dolliwaat ci ndigalul sëriñ bi mu wax ne nañ leen ko leeral mooy sant leen bu baax a baax ndax te xam ne ni mu ko waxee ci làmmiñam mooy yitteem ji ko gën a ñor mooy aw naalam itam ni mu ko leeralee it lépp lu ciy xalaat wàllu njàng mi ni mu war a doxee ña fay dëkk nu ñu war a toll ak nuñ koy tëralee lépp toog teg na ko ci loxol waa Rawdu Rayaahiin ñu ànd koog ñépp ci njiital sëñ Ahmad Badawi bu ko defee bu xalaat yi àggee nag danañ àndaat ba ci moom jébal ko ko ndax nee na da cee war a waxtaan yëgal ko ñi mu bokkal sëñ Tuubaa ak ñi nga xam ne ñooy bokk yi ak mboolem seex yi sëñ Tuubaa yëpp ak ak taalibe yi it mu egg ci ñoom ñëpp xam ko mu door a tàmbali liggéey bi ñu xam ne kon te liggéey bi tàmbaleegut li mu doon woote tey mooy xalaat yi waaye tàmbaleeguñ ay tabax ne daari alxuraan yi itam ak majaalis yi li nga xam ne moo daan dox ci dëkk bi ni ko toggee woon ci loxol maam Morom Cheikh Mouhamadul Fadil nee na loolu mi ngi koy feddaliwaat nee na loolu itam bëgg na ñëpp góorlu ci te wéyalaat ko nañ ko doon doxe nañ ko dëgëralaat loolu rek daanaka ci gàttal mooy kàddu yi ndax kilifa kenn du ko yokkal ay waxam loolu la ma waxoon naa leen ko wax. bëggoon na koo leeral ñëpp xamee ko noonu nee na nag ngeen daal di jëm ci liggéey bi te takku ci bu baax te xam ne mi ngi ci seen kanam nekk ci seen gannaaw te fas yéene ko ànd ak yéen lu ngeen ci xalaat rek ba noppi indi ko ci moom jëbal ko ko wasalaamaaleykum wa rahmatulah